masih ada Mbel Sow a ngi nii ndeysaan le phénomène Ngor fils de ndeysaan Ngor jan ndeysaan mais arène arène ndeysaan ndeysaan a te jomne xaye jomne xaye jomne fa yaqo baxel de wo ñaxo sipo jen kam arène de fils de fils de mana na mbel soop a ah, maxe simna wa mbel soop fep leya nuno ɓi nuno xaya ngor ñaax champion maak ne machine ne استنى ايوا فاس góor ñaaxa si bojjon ndeysaan ay samp waaw waaw waaw ale ka may doole ndeysaan cay góor ñaax ay waaw ay waay cay góor ñaax la ilaha illallah masin ne ragi de de illay walay dalay hay ngor ñaax tet tet tet tet tet tet xew fees fils de géej ñaax ndeysaan maana na mbel soob waay say machine ne Masin na kayo.